asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 6 septembre 2019 yi yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb lay doon Leewtoo point net ak Lutte TV bu dee sunu lamb la nag fa la ñuy njëkkee yëglikaay bi nag tey dafa xëy ñëw kii nga xam ne nii daal moo di Bombardier mi nga xam ne dégg na roi des arènes ñaari yoon moo xëy nag mel ni ay buntam fi mu nekk nii day da koo ubbi ba mu ne yang ñun ko ubbi nag ñenn la ñi ñuy tuddee ay espoir wala ay xale yoo xam ne boobu fi mu nekk nii yegg si nañ ca VIP ka ca njëkk mooy Ama Baldé Boy Niang wala Reug Reug Bombardier daal daa jàpp ne fi mu nekk nii ñooñu moom fi mu nekk nii moom boo bëggee dégg-dëgg mat def nañu ko ci làmb ku leen jëlul kay xanaa ragal leen ngay wax waaye waxoo waxi làmb sunu làmb xëy tey ñëw du ñu wax lu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag digganteem ak kii nga xam ne moo di Modou Lo ak Balla Gaye numéro 2 Bombardier ne na ñoom ñaar moom kenn amu ci màqaamam ma lay laaj ci làmb ndax nag ñoom ñaar ñëpp man maa leen boole ci benn ngemb daan leen kon xalaatuñu mukk ma di leen laaj waaye tamit leneen loo xam ne Bombardier wax na ca maanaam làmb joo xam ne dafa war a yem ci juróomi nit wala juróom benn nit Bombardier daa jàpp ne loolu warta mën a nekk parce que nag li ñu war a def mooy mbër yi jaxasoo bëre mayante saas gi mel ni tuleeg màlle bu ko defee làmb ji gën a jax feneen foo xam ne nii moom jàppal bu fekkente ne tamit ak déggoo am na fa daa mel ni am na côté boo xam ne moom xaw nañ caa wuute xalaat muy wokk énergie yëglikaay bi làmb xëy tey wax ñu ko la ko waral nag mooy Ama Baldé parce que am na ñoo xam ne ca sax ba d'accord nañu Modou Lo jël Ama Baldé am na ñoo xam ne tamit gisewuñu noona moo tax nag yëglikaay bi jàpp ne day est-ce que ak ñàkk déggoo amul fa nga xam ne moo di yokk énergie waaye Ama Baldé mooma nag suñu làmb ba tey mun ñuy xamal daal na moom day mën naa am yaakaar de ba tey daal mën nay continuer am yaakaar ne diggante mag Modou Lo mën naa taxaw sunu làmb xëy tey ñëw du ko wax waaye mbokkam ma nga xam ne nag moo di Sa Thiès moom fi mu nekk nii day yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw du ko wan wan ñu ko aw photo mook mag ja Balla Gaye ginnaaw ba nga xam ne bu yàggul papaam génnoon na di ko dànkaafu Balla Gaye numéro 2 tamit génnaat démb di ko daan kaafu moo tax nag sunu laam ne Sa Thiès fi nekk nii day lenn la war a def kon mooy xoolaat boppam wala taxawaayam ndax olof nag dañ ne ku ñëpp tufli da ngay tooy sunu làmb xëy tey ñëw wax nu lu mel noonu ñii moom seeni mbir demul dikkul wala boog dafa ba ca suuf a suuf muy waa Pikine mbooloo la ñu def bi cinq victoire ak six défaites mu mel ki nag seenu écrit moom a doxe doxewunu sunu làmb xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni ki noonu jàppal yëglikaay bi nee na bu fekkente ne kii di yàlla moom delsiwaat nu fa te ba mu delsee tamit li nga xam ne nii daal moo di ndam am na ko waaye ki nga xam ne ni tamit moom moo di tonnerre moom it day judduwaat na beneen juddu bu bees yaawu jaal moom daa problème maanaam moom fi mu nekk ni kale kàkk la def dem defatu ko Cobra numéro 2 moom ay saison balance ñoo ko sonal fi mu nekk nii moom année balance yu baree bari lay def gëj naa bëre lool ki nga xam ne nag moo di njaga caam ak commando senior moom mu mel ni ki ñoom day li leer ba leer l'essentiel ba ñoom def nañ ko waaye am na ñeneen seeni mbir moom ci lëndam dëgg lañ dugg muy ki nga xam ne mooy Ass Mbaye bébé ama ak calambeer ñoom daal seeni mbir doxul moo tax nag ka nga xam ne moo di seen entraîneur di Baba Diallo moom mu ngay justifier wala boog mu ngay jéem a indi ay neeral ci li waral ja ci jafe-jafe yooyu am fi nga xam ne moo di Pikine mbooloo waaye keneen koo xam ne nii moom am na ko muy dànkaafu mooy maama Lamine bu Lamsaar maama nag ka muy waxal kenn la mooy jokkeel nee na jokkeel dey du moom mooy koo xam ne nii moo may baare mooy taxaw ci sama yoon ne ma doo jàll nee na jokkeel bu mu xalaat loolu moomu ko tay suba waxi noppi waaye ñeneen loo xam ne nii moom gis nañ ko fa nga xam ne mooy ca Leewtoo TV wala Leewtoo point net mooy ki nga xam ne moo di Siteu waajal ga muy waajal dimanche open press la ko waral nag mooy combat MMA ba mu war a jongante ci réewum États-Unis d'Amérique waaye fa nga xam ne moo di Lutte TV tamit fekk nañ fa benn émission boo xam ne moom lañ seen seen affiche ka nga xam ne nag moo di wulli ak liiru jaan ñoom ñaar ñu nga fa di ko defante ba mu saf sap ci ab vidéo waaye leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci sunu làmb lañ koy fekkaat muy promoteur yoo xam ne day fi nekk nii ñu ngi taxawal ay combat espoir kenn a gis mooy idaal ñooñ nag taxawal ne kii nga xam ne mooy booy bawal numéro deux ak Zal Bambey bu bawal suñu làmb xëy tey ñëw wax nu ko waaye Baba Jaw itam day mu nga ca de Jacob Balde Mbañi Kayre taxawal na ko ak kii nga xam ne nii moo di bébé ama ak pël bu daaru tamit boobu moom taxawal na ko moom Baba Jaw waaye jàppal division yi septième division jàppal ña fa nekk tey qualifié numéro deux fils de balle kéwél laay goote mbay guy gi Pape Thiam ti ñaa wulli numéro de Youssou Ndour ñoo ñooy waa septième division suñu làmb xëy tey ñëw wax ñu la mel ni kii noonu waaye man xam nga lu may waxam damay bàllu ak nit ñi tey yàgg maar tey la àjjuma yàgg yàlla nañu yàlla jéggal jéggal bépp doomu aadama te def jàmm ci réew mi waaye def ko ci àddina bi te yàlla na yàlla tamit tàpp suñuy xol na ko da baax doon waxee ku baax a baax ka yàlla na yàlla yokk ay leeram mook bépp mbindaafon waaye bépp wàlliyu ndax nag Sénégal loolu la ñu am. salaamaaleykum mbokki sur Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ànd ak yéen seen revue de l'arène comme ni ñu koy defee chaque jour ak euh, Babacar sama mag sama xarit Babacar nuyu naa ay sama madame Niang maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar sama rakk sama xarit comme ni ma koy waxee rek ah xale bu yar bi macha allah maa ngi lay bëgg bu baax a baax di nuyu internet yëpp. waaw di la ñaanal jàmm di ko saaku ci yow di ko ñaanal jàmm tamit internet yi di leen saaku ñaan ñoom tamit ñu ñaanal ñu jàmm rek. Sénégal jëm kanam mais wala àddina bi jëm kanam boobu waaw. amiin Babacar dañuy dugg ci waxtaan bi tey ànd seeg bombardier mi nga xam ne tey ñëw na ci sunu lom bi moom nag euh, dafa fas yéene ubbil bunt ñi nga xam ne nii mooy jeunes yi bëgg yéeg ci cour VIP yi ñoom Ama Baldé ñoom Boy Niang nee na lu tax ñii ni du leen jël ba ci rëg-rëg na leen nit ñi jël moom pare na daal pour tijji leen buntam parce que fu mu toll nii nit ñi mënuñ leen bañ. waaw loolu moo wax di dëgg la xel da koy daal di nangu parce que moom yaakaar naa tey dama naan ama est ce que amati na lu muy prouver moom Bombardier parce que ba mu duggee si làmb ba day defe naa yàgg na yàlla dimbali na ko mu ngi ci nekk ci nekk ci ba presque ci fin carrière am la nekk mu dégg roi des arènes ñaari yoon loo xam ne yaakaar naa mbër amagu ko kon tey nag bu xëyee taxaw mu ne ñu Ama Baldé Boy Niang ba si rëg-rëg ay xale lañ fi yoo xam ne fi mu nekk nii ubbi leen ay buntam te ñëpp war a ubbi ah, dama naan moom am na si plein droit bu dee Ama ak Boy Niang ak Reug Reug nag dama naan fi nekk nii moom moom euh, ñu xool ba xam lu ñu mënee suñ la dimbal suñ la joxee loxo nag wala ñu jox la benn occasion te exploité woo ko ko regee ñu xam ne xëy na yow mënagoo jàll nga delluwaat am yoo loo loo defaat yeneen yeneen essai mm-hmm. waaye nag fi mu nekk nii moom moom doxoon nañ fi yaakaar naa ko moom ak Ama yaa ngi dégg kon tey yaakaar naa ci ni mu waxee ni promoteur bu jóg bëggaat ko man naa am du jafe mais c'est très normal tey ñu ñamante tamit ak yenn xale yi ci wàllum bëre ñu xool ba xam xale yooyu lan lañu ñu mën a waaw waaye nag euh, moom comme li muy wax nii euh, li ma wax sànq rek am na ñoo xam ne xay na mën nañoo bañ a bokk ak moom gis-gis waaye li leer ba leer daal moom wax na te tamit mbër bu mag la te ñi mu wax ñi mu wax pour ñu ubbi leen porte tamit yaakaar naa fi mu na lu ñu wane daal. waaw ci ubbi bunt yooyu ba tey waa Rock Énergie ñoom euh, apparemment dañoo divisé wu concernant ci li nga xam ne mooy Ama Baldé diggante Modou Lo Ama Baldé ñi naan teel na ñi naan teelul loolu nag nee na ne andi na xaajaloo bi Rock Énergie ñii bëgg nañ ñii nee nañ teel na. ah waaw xaajaloo bi de moom soxla wuñ ko fenn ñun buñ sañoon daal ñëpp ñu nekk ñu ne. duñu xaajaloo xëy na nag euh, des fois itam ñàkk euh, bokk gis-gis du mën na bañ doon problème parce que ku ne da wax sa rek indi kii wax lii kii wax lii waaye loolu lépp suñ ko dee dégg tey ci diggante Modou ak Ama moo lay wan ne ñoom kon ça veut dire tamit loolu day dëggal li ba ma doon wax sànq loolu lay wan ne kon ah, ñoom écrit bi wala moom mi nga xam ne moom mooy mbër mi xam ne moom pour man moo yor dernier mot bi parce que mooy athlète bi wàcc ci géew bi moom mooy xool ndax day jël Ama moom muudu wala da ko fii bàyyi jëli leneen mais daal li am ba solo mooy digganteem ak Ama fi mu nekk nii moom Modou Lo nit ñi bëri na lu ñu koy wax chaque jour que jëfee ñu ngi naan Modou Ama Modou Ama kon nag fi mu nekk nii pour man euh, war nañu mën a bëre rek parce que làmb la sport la yaa ngi dégg guñ ci daan doo génn Sénégal te ay naattango lañ ay morom lañu xëy na muuru yàlla da koo dimbali mu teel na a d'avancer xëy na teel a am benn cër ci làmb boo xam ne ñi ñi mu maaseel amaguñ cër boobu loolu moo tax xay na mais fi mu nekk nii pour man daal bu promoteur ñëwee bëgg seen komba bu ñu déggoowee ci côté écrit yëpp war nañu mën a jël combat bi ñoom ñu bëri mais itam lañ leen di waxaat rek mooy euh, jël adversaire wala nangam moom li ci gën mooy waxtaan ba déggoo moo ci li nga xam ne moo ëpp solo daal waa cohésion bi am na ci solo trop parce que loolu day baax ci athlète bi day baax ci su ngeen di dem ci waaji combat bi daal waaw. waaw Babacar dañuy jóge foofu dem euh, ci Sa gis nañu fi temps yële euh, kii di père Double Less génn na wax ci Sa Thiès ngay tamit génn na wax ci Sa Thiès suñu lamb di laajte nag est-ce que tey jotul Sa Thiès defaraat li nga xam ne mooy toogaayam xoolaat copéem bu baax parce que bu sa papa waxee sa mag wax. est-ce que tamit jotul nga xoolaat sa bopp tuuti. waaw olof Ndiaye dañ ne ku ñëpp tufli ay sa da ngay tooy waaw loolu la ñu wax comme li ma waxoon démb nag dinaa si ñëwaat ñun ci làmb ji tax ñu xam Sa Thiès xamuñu ko ci reewande wala ci nangam sangam waaye nag euh, am na loo xam ne mënuñu koo wax ci moom ndax li tax mooy dëkkuñu ak moom. duñu kilifaam mais ñi wax ay kilifaam lañu yaakaar naa waajuram bu góor lees moo waxoon magam bu mu waxoon ndey ak bàyyi di bàll waxaat démb loolu lépp nag li ma ci gis mooy ñoom dañu bëgg a xëy na li li tax fi ñuy wax moom mooy ci carrière sportive am maanaam gën ko mën a gérer gën ko mën teg ci yoon pour que ëllëg mu yegg fi nga xam ne moom lañu yaakaar ne fa la war a mën a yegg yaa ngi dégg xëy na ci aspect boobu la ñuy wax ak moom aspect sportif bi loolu tamit kon li ci war mooy mu xoolaat li ñu koy wax ndax koo xam ne sa papa bëri na ba bàyyi bëri dem na ci bëre fu nekk ci àddina bi ay jeux olympiques fu ne dugg na fa indi fi ay médailles représenté Sénégal yaakaar naa bu demee tey ba toog ngeen juddu ay doomam di bëre bu leen nee nii la rek war ngeen a mën a bàyyi xel ci loolu. comme ni nga ko waxee rek ñoom ñoo bokk lépp rawatina si ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ak waajur seen diggante naa lu ñu si wax rek pour euh, lu la jëmale kanam la ak bëggal la lu baax la ci loolu la ñuy jógee dem seeti waa Pikine mboolo bilan bi di continuer ba tey ci biir suñu lamb ñoom nag ñu ngi ci li nga xam ne mooy onze combats combats 5 victoires 6 défaites mu nekk bilan boo xam ne nag Babacar booy xool du lu gën ndax fu défaite ëppee victoire rek moom am na problème. waaw Pikine mbooloo de vraiment loolu moom 11 euh, combats 5 victoires 6 défaites moom nekkul bilan boo xam ne vraiment bu baax la waaye xëy na li ñu leen di encourager mooy bokk bi rek l'essentiel que fexe nga ba am ay mbër yu compétir waaw loolu mais li ci des nag mooy côté résultat bi nga xam ne mooy bu positif bi loolu yaakaar naa ne tey ak bari na ay écrits yu juddu biir Pikine foofu fa la ñuy sooxe ko kon defe naa euh, tey yaakaar naa ñi ko yore am nañu responsabilité ci li nga xam ne ni moo fa am ci ay résultats yoo xam ne du résultat yu normal mbëri tamit pour man kenn ëpp leen ci responsabilité ak management bi yooyu nag nañ ko xoolaat defaruwaat pour que équipe bi mën na ñëwaat nekkaat place am parce que euh, Pikine mbooloo comme ni ma la ko waxee sànq rek dafa yàgg si làmb yàgg a vane ay champion mais tamit terewul gis nañ ne que saison bi li muy métti métti mbër yu mag yi nga xam ne xawoon nañu wàcc wala wàccoon nañ sax génnaat nañu ku mel ni Mame Balla numéro un ñëwaat na fa gis nga daan Tapha Mbeur Tonnerre tamit ñëwaat na nekkoon ci série de défaite bu metti ñëw daan Tidiane Faye yaa ngi dégg kon loolu tamit lu jar a wax la waaye Cobra 2 moom ay année balance lay def at yii boo xoolee gëj na bëri ba ko a soog daanee ba tey bërewaatul loolu nag moom xëy na tamit dinañ ci liggéey parce que am nañu ay mbër parce que buñ ne naa Cobra 2 ne la tonnerre ne la ñoom maam Balla yi vraiment ay champion waada lañ xëy na gën a liggéeyaat ñu dikkaat am na fa ay xale yoo xam tamit ñu ngi wane seen bopp xam nga ñu mel ni ki ay ñoom xam nga ay njaga caam ak ñu mel ni ki noonu ay commando junior ñu tamit ay xale la ñoo xam ku leen toppatoo day baax même xale yi nga xam ne sax seen saison doxul noonu même bu ñu leen gënee liggéey déwén yaakaar naa dinañ andi résultat yu baax muy ñoom As Mbaye ak ay bébé ama ay càllambeer ak ñu mel ni ki noonu orka mais di wax ne daal nañ gën a liggéey rek pour que xëy na déwén bilan bi gën ni mu mel ren daal waaw Babacar euh, ba tey ñu dem ci promoteur yi ak euh, préparation saison bi di ñëw gis nañ démb ki nga xam ne barki démb sëñ moo du affiche yu mu i daal ñi ngi ñëw andi ay affiche am Baba Diaw tamit ñëw andi ay affiche espoir ba tey yu neex Jacob Baldé ma ñi kere loolu soo ko déggee combat la. waaw ay doomi mbër lañ waaw ay doomi mbër lañ surtout Falaye Baldé doomi papa Baldé yal na yàlla yërëm. papaam ak ak ak maamam jooju moom Jacob Balde xare leen aljana mu bépp ñoo bépp jullit bi tudd ci suuf defe naa doomi mbër la kon moom daa juddu fi fekk ngemb li ci kër gi mbañi itam kuy sa baay booy kayre kuy sa mag jéen daa juddu fekk ngemb li ci kër gi kon loolu vraiment baaba jaw di càmm production moom it vraiment indi na combat espoir bu neex a neex dolli ko ci la mu defoon idaale ñu ngi tamit indi lu neex ndax booy bawal numéro 2 mi daaxar naa moo ko njëkk a jox grand combat daaw digganteem ak albarka kayre mu daan ko moom booy bool daan albarka mu tey indi ko boole ko Zal Bambey Zal Bambey boo xam ne tamit yeewwaat na ci ay ndam nekk écrit Bawol mbooloo kon idaali tamit mu ngi ñëwaat yoone boppam moom tamit dégrosser ay espoir loolu nag liñ ciy gis que ne mooy que ni làmb fi mu nekk nii ah promoteurs yi ñu ngi ñëw par ndànk nag dañ leen di ñaanal rek li tax ñuy ñëw yàlla nañ ko fi gis ba mën a toog parce que bu ñu toogee rek làmb ji dina gën a neex et dina gën a baax si mbir yi daal mais ñu ngi leen di encourager bu baax a baax di leen jox suñu soutien ñun bépp côté di leen wan nekk daal yàlla nañu gën a gis li tax ñu ñëw si làmb waa gunge leen incha allah rabbi parce que Leewtoo moom 100 pour cent làmb la waaw Babacar dañuy jeexal ak li nga xam ne ni mooy euh, open press bi Siteu di waajal dimanche lay doon incha allah mu nekk tamit open press boo xam ne pour préparer combat la boo nee open press ñëpp dinañ laaj lu xew ba ak fin de saison bi ba Siteu di def open press. ak ku muy open press al waaw américain la bu ne sa Amérique ñoom ñaar ñu war a daje ñu war a daje moo tax Siteu nag ñëw fii Sénégal ah parce nag euh, euh, Aïssatou. mbay ci sa yooyu tànk moo xëy na moo tax mun a xaaral ma dellu si sama réew waxtaan ak sama réew ñu jàppale ma soutien may ma soutien ma mën a dem États-Unis pour mën a gagné comme amoon na fa benn combat MMA gagné fa yaa ngi dégg moo tax xëy na mu woote dimanche ca stade Mbao ba pour que ñëpp ñëw. mu wane boppam jili sekk jëri tëggal ko nit ñi ñëw dooleel ko mu fecc xam nga sitaak tarkindaa yi su ko defee bu demee mën a gañe ñu ngi ko ñaanal tamit vraiment mu gañe ndax loolu tamit leneen lu am solo la si làmba gis nañ Bombardier moo ubbi buntu boobu ci a wax MMA gañe si amaatoon si combat yàlla def gisoon nañ ko ci mu commencé ba amoon ci combat si tey mu ngi ci moom it di ko pratiquer kon yaakaar naa ne tey mbëri war nañu am yeneen buntu yoo xam dama naan sax yeneen buntu ubbiku na yoo xam ne war nañ ko exploiter vraiment kon si daal ñu ngi koy ñaanal yàlla MMA boobu yàlla si am ndam lu sedd guy guy guy waaw. waaw waa ndamu réew mi la di am lay jonganteel. <laughs> waaw kay ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ñooy suivre Leewtoo TV di leen ñaanal ajuma jàmm di leen baalu àq te di leen baal ak di ko ñaanal euh, képp ku nekk ci àdduna bi rek mais tam Babacar tey ñuy souhaiter un joyeux anniversaire suñu kilifa euh, suñu xarit suñu morom parce que wàcc na boppam tey jii ba def ñu doom def ñu lépp muy tonton Diaw di ka wax tonton Diaw dundal lu bëree bëri yàlla may la gudd fa nag wér bàyyi la suñu kanam nga yàgg ñoo jiite xéewal yi gën a bëri incha allah. waaw loolu moom dañ koy ñaanal yàlla rek anniversaire mu yàgg koo moom tonton Diaw neex na si kilifa ngay nekk ak ay nit yilif leen ba pare mais wàcc sa bopp ba tolloo ak ñoom parce que ñun ñi defe naa ku ci ne ñeme nga koo aborder nu mu la neexee te itam du du fekk nit ku am problème moom mënul loolu waaw kon defe naa loolu tamit te loolu ci xeetu mbaax la bokk ci jikko yu ñu soxla ci doomu aadama la bokk kon oyofam boobu ak euh, maanaam am njëriñ parce que nit doyul doyul du ñu doyee doomu aadama bi lenn dul njëriñ ay satu te tonton Diaw ci li ñu xam ñun ci nekk bi ñu nekk ak moom nit bu am njëriñ la kon yàlla na yàlla guddal fanam wéral ay cëram bàyyi kook njabootam defal ko bépp doomu aadama ba mu yàgg a feete anniversaire am loolu moom dañ ko koy ñaanal mais tamit di nuyu borom kër yi nga xam pam mooy suñu kilifa tamit Pape nekk Leewtoo yépp

Aïda Diouf tamit di ko ñaanal yàlla yàlla wéral ci ndax dafa xaw euh, kii tuuti girip waa xam nga taw beeg yooyu quoi di ko ñaanal jàmm di nuyu ñëpp Ndey Kumba wala satu lépp benn la mais tamit di nuyu équipe bu basket bi parce que xam nga Youssou Ndoye sama rakk sama lépp dañuy jokkoo bi ñu doon jokkoo vraiment ah ñu leen di encourager am nañ mérite participer xëy na préparation yi moo am ay jafe-jafe ñu leen di ñaanal tamit li ci des ñu war ko jongante pour mën a qualifier aux olympiques yi yàlla na leen ko yàlla defal Youssou Ndoye maa ngi lay nuyu bu baax a baax li leen jox tamit suñu soutien yéen équipe bu basket bi Maurice Ndour seen capitaine ak ñëpp mais di nuyu tamit suñu wayjur soxna Penda Diawara dëkk Sacré-Cœur yaay booy maa ngi lay bégee bu baax a baax a baax Aïssa Faye di la ñaanal jàmm di ko ñaanal internet yi di nuyu mère Sougou suñu yaay ak caat sama séeri <laughs> nuyu naa ñëpp ñëpp maître Pape Sène sama maire commune ak du ma ko fàtte waa sama xarit la sama maire la wóolu ma trop ci léppam kon maître Sène yàlla na yàlla yokku jàmm